ñu ngi leen di seetaan seen daara ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara di leen ndokkeel ñu ngi ci woon ci weeru koor wi ñu ngi ci njol njombaxtan bi ci ponk bi nga xam ne moo mujj ci weeru koor wi muy xeetul fitri muy julli korite islaam ñaari xeet la xam xeetul addaha muy jullik tabaski ak xeetul fitri muy julli korite su fekkee xoor na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñi gis weer wi kon ci suba sa dañuy julli ji julli korte su fekkee xoor na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñi yentu weer yi gisuñu ko dañuy matal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon parce que fa ne xoon soomoo li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi fa in qumma aleykum fa akmilu iddata salaasina yawman na su ngeen ko gisee na ngeen xoor nangeen ngeen xoor su ngeen ko gisee na ngeen xori bu niisee ba gisuleen ko nangeen matal lim bi fanweer julli korite nag sunna la sunnatul mu akkada la dañ koy julli ci yoor yoor ci mën nañ koy jullee ci bayaal boo xam ne muuruñu ko ci lañ sopp jullee ko su xamu it nga xam ne ngànt xam na mën nañ koy jullee ci jumaa mën nañ koy jullee ci biir jàkk ndax boo xoolee tey ca màkk ñu koy jullee ca kaxaba ga ca Madina it ñu ngi koy jullee ci jumaa ja kon su ngànt xamee ba bayal xamut nit manes na koo jullee ci jumaa waaye nag la doon cosaan la ma mooy jullee ko ci barab boo xam ne ca xàll ba barab bu yaatu boo xam ne xamul dara ko muur parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su xeet jotee malaaka yi dañuy wàcc di photo di jël jël nit ñi da leen caméra di jël seen photo moo taxoon bi daan na ñaax ñaax jigéen ñi ne leen yéen ñëpp génn leen dem julli ji korite même jigéen ñi nga xam ne sax dañoo xamee dañoo dañoo gis dañoo gis mbaax maanaam dañoo arrêté seen julli yeneen bi daan na leen ñaax ñi dem julli ji waaye bu ñu demee ñu toog ci gannaaw nit ñi mais ñoom duñ julli parce que dañoo xam ngàntal julli kon nga gis ne yeneen bi xeet lu mu fonkoon la kon ñu ngi leen dénk yéen ñëpp ngeen fonk julli xeet du korite naa rek naan naa toog déedéet da ngay dem dox nga julli ji parce que bés boobu. malaaka yi dañuy génn di puukaruhu jullit ñi nga xam ne doon nañ def santaane yàlla ba bés ñëw ñu dem di korite ji moo taxoon yonent bi jamono jooju ñoom suñ jogaan di julli ji korite dañuy jaare ci yoon wii suñuy dellu suñuy jaar ci beneen yoon am ñu ne la tax ñu ko daan def booba xéeféer yi dañ leen daan reye naan ñoom de ñu ngi nii daf ñu dañoo dañoo niiw am na boroom xam-xam yoo ñu ne déedéet yonent bi dafa bëggoon bu jaaree ci yoon miskin yam fa fekk mu sarax leen su dapaate ci beneen yoon wa yeneen miskin ya mu sarax leen wax nañ ne ci sopp nañ ci ku jóg di julli ji ngay def ay takk biir ak ay tahmid maanaam di subhanallah walhamdulillah sooy dem ak boy ak booy dellu si yëpp kon yàlla na yàlla nangul ñu xeet gi yal nañ yàlla bu nekk suñ mujjug xeet yal na yàlla may ñu ko yeneen i xeet te yàlla nangul ñu suñu weeru koor nangul ñu suñuy naafila nangul ñu suñuy muudi koor nangul ñu suñuy sarax ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu luñ ci def yal na yàlla fulandil ñu ko lépp luñ ci juum yal na yàlla jéggal ñu ko ca matam ga ci barki yunus sallallahu alayhi wa sallam ci barki alquran ci barki sox ramadan wasalaamualeykum wa rahmatullah ñi ngi dellu di gërëmaat ki nga xam ne moo yor seen daara di sañu amadu joom di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér mu ngi liggéeyal alquran liggéey boobu muy liggéeyal alquran yal na yàlla wàcce ko ci moom ak njabootam gi yëpp ak jullit yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ñu ngi ndokkeel itam société bi nga xam ne moo koy jàppale di Adja di ko ñaanal yàlla yal yàlla gën koo may doole yal na yàlla gën a barkeel ay mbiram yal yàlla gën a barkeel ay yëngatum ci barke alquran siru alquran barke alquran yal na fees feeñ ci barabu liggéeyukaay ba ba mu yëg ko ba suñ déwénee mu def lu ëpp lim def ren yal na ko yàlla dimbale wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu